Oh. ginnaw ciowal détournement 3 millions 3 milliards 900 millions yoy nga xamanteni société turque bi basée Émirats arabes unis porte na plainte qui di Fatou Nansignan ginnaw coow lolu dañ ci dégg ñu cité ci turu di Aziz Ndiaye le promoteur ak frère ginnaw lolu nak dañu sat ci Aziz Ndiaye pour mu leeral ñu la moo tax turam c'était ko ci plainte bobu nga xamanteni ni turque bi porte na ko plainte qui di Fatou Nansignan. jërëjëf ma ngi leen di nuyu mbokku nga xam ne internet partout dans le monde comme ni c'était juste pour def mise au point wala éclaircissement par rapport à euh, li nga xam fan yi koy par rapport benn dossier wu engrais bi milliards et quelques dina ci tudd ci sama frère ñu familles sama euh, problème bi très simple je pense que ni pour Sénégal c'est une plainte pour une société représenté ici par ces avocats qui ont rédigé plainte c'est bien clair et net et précis une dame qui s'appelle Nancy la plante. Plante, problème biir mu am une plante bu dox bi Aziz Ndiaye Ndiaye famille dans cette plante. li c'est très simple dafa am ñu fi bateau ñun importé wuñu bateau engrais xamuñu borom bateau engrais ku ko dégg yaakaar ni ñun ñoo jël trois milliards wala yaakaar ni ñun ñoo signé contrat trois milliards ñun mosuñoo signé benn contrat ci benn navire du ñun ñoo ko indi Sénégal borom bateau bi xamuñu mosuñoo gis soo ko ni woon koy Aziz Ndiaye xamu ko man xamuma ko société boobu bërki démb laa ko mës dégg bu ñuy wax xaw ma R énergie xamuma leen kon li leer ba ci plainte bi nga Aziz Ndiaye dañ ko porter plainte plainte la viser abus de confiance la ñaari nit une euh, relation commerciale amoon engagement bu kenn a respecté te respecté ko ñu mbir mi dem ci ko ña nga avocat wu ki bato bi Sénégal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 Qui me porte plainte bind nous qui ci plainte bi faut dem ci internet bi wala journaux yep yaa ngi gis plainte bi doo ngeen ci gis suñu Il y kon ñun dossier boobu rien qui nous lie dans cette affaire Massata Ndiaye woon nañ ko ci sous forme de témoin La ko ndax mës nga ci jënd mu ne leen jënd na ci légalement ni commerçant yu bari jëndee comme nous, te ñi ci jënd man nañ des centaines de personnes mais à chaque fois le nom de Aziz Ndiaye et son frère